Moussa bu ëppin Dio ñoom Charles ñooñu dañuy yëkkati seen xaalis yëkkati seen million ñoom Jean Jean Malaka ñoom euh, comment dirais-je euh, ñoom ñoom ñoom Matel dañuy yëkkati seen xaalis ji ma ko jox di sant aussi bu baax a baax Ndéné Ndéné bu Gàmbi maa ngi koy sant bu baax a baax moom Jabel ñoom Omar Touré ñoom ñëpp Insa ñoom ñëpp maa bu baax a baax sama seexu yàlla yi.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 kon donc yow lépp looy def wala looy wax rek war nga xool bu baax a baax a baax a baax. mais Zarko ñëwul si combat bi. parce que yow. non du le 16 de yow. xanaa a jàpp le 15 waaw ah, parce que fi war a ñëwaat. waa léegi oui ma yow le 16 doo fi jóg. waa doo dallu. déggoo ma de dama ne la borom xaalis du ragal passement. borom xaalis du ragal passement ñun seetewoo ngi nii dante gi jege ñu tout prêt te yor nañ xaalis léegi ñëwal ci combat bi wax la wax bu doon xaalis du ragal pansement Zarko ñëwal ci combat ma ni mhm. Ada Fass li ngay bëri moom la soxla nee na mhm. maam bi ngay yow ni maam dem ci moom ne loolu moo ko arrangé loo koy tontu xanaa dafa bëgg ma wax lu may indi <laughs> waaw mais tontu xanaa day laajte Ada doo xool da ngay laajte du ma la wax dara na semba siya si na loole njikka cëpp doomu njaago du dof ma wala nu mboos ma njagu ganaayaf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 ñu gis nga ànd ak sa mbokk yëpp. maa ko képp sama loxo moom loo bëgg leneen képp naa ko sama loxo. organiser le bis bi topp la waa Grand Yoff képp topp sa ginnaaw ñu gis xale bi nga xamante ni mooy Ada Fass nga xamante ni dafa toll ci diggu ndëndam bëgg a dégg daal ju gis Ada nga xamante ni moom. lu ci ëpp ci ay kombaam dañ koy gis moom bëre lay jeexalee làmb may laaj yow Zarko ndax du bëre boobu muy jeexalee làmbam yow da bëgg jaare foofu xeex ak gañe ko moo tax nga am confiance bi nga saa déggoo mën la borom xaalis du ragal pansement surtout ngi nii nabi sukkëri ngi nii jege ñu tout près loolu rek jeexal na wax bëgg xeex bañ xeex kon làmb ji man bu ma déggee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 sëñ bi sëñ bi dama la ko min woni bakan so jagi mi jagat so jagani mi arat so arani mi arat si mi nangi mo an yow seyel ma ba yaltu gasi billahi wallahi maa la wax loolu dafa leer eh onon bandiraɓe haalpulaaren min beltimon o feewi on jarama allah jarama ñagane men ko balɗe ɗiɗi heddi hen ñagane men allah dokku men victoire belɗo e dow makko on jarama allah jarama daɓane men duwa kala ko ɓiɗɗo haalpular goni e nder aduna o daɓɓine men dowa ah. mais yow ba gis combat bi da jël benn benn poids bu doy waar. mu ah, ma fii ma ni. Eh. combat bi da ci jël bu doy waar. Hmm. lu waral loolu combat ko laaj. non ñu jël ko poids waaw coori ji. Ah. Eh, waaw dina xumb dina neex. en tout cas li wax rek mooy. ku yéex a jënd billet dem esat. Mhm. non waaye di nga. di wax euh, les autorités de Grand Yoff ah. ñu ngi leen xaar bu baax a baax ci làmb ji ah Yves Braye ñu ngi lay sant bu baax a baax di wax ni euh, comment dirais-je Formose Formose doomu Grand Yoff nga dañu bëgg nga ñëw jëndal bi booy Grand Yoff yi diib diib gis Grand Yoff dafa def ci yow lu bari population Grand Yoff dafa def ci yow lu bari kon bul toog di seetaan ñu lay woo ñëwal nga jàppale population Grand Yoff ñu dem seetaani làmb ji Cheikh Cheikhou Kouyaté kuyaate Kouyaté ñëw leen ngeen jëndal booy yi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 an min mi haalta sah boy bilay boy sa accano bone waalo boy boy an annda to naɗɗa de sëriñ hakkude mi allah annda to naɗɗa boy mhm. ñu ngi lay fay Zarko mu jël xale bi nga xamante ni yaakaar naa su mu jël adversaire yu jël bëri mhm. peut être ta âge ma côté bëri bi suplex bi nga xamante ni adversaire bi am na ko muy Ada Fass mën bëri bu Ada Fass mën bëri ñu gis na Zarko koy mën a bëri ku ne da koy song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 daa génn ci làmb non day génn. dañuy libéré avant rek après génn. Ah. dama ni la eh. boo après ngay dégg suba eh du ma bàyyi mbër xel déedéet. bëri du tout. man.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 parce que eh, mooy li ñuy wax rek doomu njaago du dof hmm. man njaku ji ko fuur hmm. jamais mais mu nga lakk su njaago hmm? ah wax léegi man njaku ji ko fuur ah, mooy doomu njaago du dof lépp ay kii yow kii nag xalaat sax ay butit ay mbaax ak lépp lépp mun naa ñëw estat bu yeboo bu ngeen dem yóbbuwaale leen masque dina xasaw xunnu du na xasaw xunnu yéen ñëpp loolu la ko wax yóbbu ma policiers yeeg yëpp nañu yóbbu ma ay masque. mais Zarko à ne da ngay jóg de loolu la de. <laughs> léegi lu tax ma ree nga de. moo ma jaaxal. Ah, mi ngi noonu ma ne looloo jaaxal ni ma yëgatee moo ma jaaxal ma. man bëggoon naa la. kon day daw de arbitre day siffler mu daw. am njaay joxal jóob moom noo def mu ñam ko. foog nga dem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 loolu moo ñu delloo si fii nii yaa ngi comprendre. non bon c'est bon looy tàggoo looy tàggoo c'est bon c'est bon. waaw yow eh, li ñuy tàggoo rek mooy que ni ñu ngi gërëm l'ensemble zone 7B de Grand Yoff gang gi gaal gi doole lew na cité millionnaire Arafat xaar yàlla eh, Liberté 6 HLM Grand Yoff Sicap Foire zone de captage. Eh.